salaamaaleykum mbokki xeetu internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seetaan seen émission bi nga xam ne mooy Modi Style ci chaîne bi chaîne préférée El Vision Média tey nag dañoo doxantu woon ñëw fii ci Kër Massar ñëw seet si ki nga xam ne mooy le responsable de l'univers de la mode kooku nag mooy Bira Ndiaye Bira ñu ngi lay nuyu bu baax. waa ñu ngi lay fay bu baax euh, Mor Alburax di euh, nuyu mbokk internet yi di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre euh, El Vision Média. di a baax d'accord Bira ñu xam rek kan waaw jeune la rek dafa entreprise bu ñuy univers de la mode école bi nga euh, le directeur général Mat Ndiaye initié euh, depuis depuis depuis depuis 2006 hein waaw kooku mooy Bira Ndiaye moom mooy gérer maintenant euh, enseignement bi nga xamante ne moo nekk ci biir école univers de la mode. d'accord en tant que responsable tey bu ñu la waxoon tey lan mooy univers de la mode lan nga ñuy tontu. Euh, univers de la mode benn structure la de formation professionnelle de stylisme et de modélisme bi nga xamante ne depuis 2006 mi ngi dem donc am na 12 ans je pense boo xamante ne mi ngi exercer wu euh, dafay joxe aussi ay diplôme d'état école bi aussi ñu ngi jàngalee tout ce qui est habillement suñu ne habillement nag dafa vaste mooy li nga xamante ne moom mooy couture moom mooy euh, ay accessoires accessoires c'est comme les genres de collier li nga xamante ne moom mooy coiffure yooyu yëpp dañ koy jàngale ci univers de la mode mais comme en ce moment là dañoo am benn filière rek mooy dox mooy filière habillement coupe couture. avant filière boobu noonu ñaata filière moo fi nekkoon. waaw benn filière boobu la ñu commencé enseigner depuis mais si euh, si texte bi ak euh, ak carnet GIE bi bobu mën nañ la permettre nga defandoo ki yëpp quoi nga defandoo module yooyu mais comme ñun aussi dañoo xawa a fermé wu tuuti loolu moo aussi ñu mëna a def ki bi rek quoi abi abima bi non mhm. mhm. d'accord da nga tuddu sank école de formation alors dama bëggone xam formation bi naka lay démé wa formation bi ça dure trois ans formation bi ça dure trois ans léegi maintenant trois ans trois ans yi après da ngay génn nga ñu sanctionné la ak benn ak benn diplôme diplôme boo xamante CAP la certificat d'aptitude professionnelle ak beneen boo xamante certificat de qualification professionnelle mooy bi nga xamante ne moom la la école bi di di délivrer beneen bi moom la la état moo la moo la koy délivrer léegi maintenant dafa am benn choix benn kii bu mu bëgg a ñëw tuuti benn astuce si école de formation professionnelle yi des fois dafa am école yi nga xamante surtout les parents d'élèves pour nous, xol bu baax a baax fi ñuy sen euh, sen élèves aussi ndax dafa am ñi nga xam dañ sen école sont reconnues par l'État. or que n'est pas ça donc euh, pour nous, dem écoles école yi nga xamantene sont reconnues par l'État. lolu dal la ci amad luma ci don annoncer wat quoi c'est faire de formation. d'accord da nga bëgg wax ko ne sen école bi c'est par l'État. Mm-hmm. suñu école bi c'est par l'État. te durée bi dafa dem 100 ans donc papier bi dañ ko reconnaître durant 100 ans. Mhm. d' accord euh, mbokk xaritu internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen émission bi di mode style tey ñu ngi fii ci Kër Massar alors dama bëggoon nga wax ma tuuti rek yéen a ngi woon fële Liberté 6 lan moo leen indi Kër Massar. waaw côté Castor je pense que ne def nañ fa dix ans te je pense que ne nee nañ la bërëb soo fa nekkee wane fa say euh, sa lépp sa mënin sa lépp pendant dix ans donc foofu amatoo dara loo fay prouvé ti te tamit secteur bobu aussi dafa dem ba beneen sens dafa saturer nit ñepp pour accès bi da fay metti fofu lolu tamit euh, benen bi moy dañu ñëw keur Massar déplacer wu nak tamit aussi fi lañu dëkk fi moy suñu fief keur Massar lañu am donc ñun dañu ñëw pour euh, jappalé ñi nga xamantene ñoy population de keur Massar pour ñom ñepp te si ñu mëna a bénéficier aussi li nga xamantene mom lañ doon jox wa Castor wa ville etc etc d'accord légui ci biir formation bi c'est payante ou pas. wa formation bi c'est payante waaw formation bi CP euh, dafa formation normale am formation accélérée am formation modulaire mais formation euh, formation normale bi formation académique euh, cette formation dure trois ans première année deuxième année troisième année da ngay def coupe couture da ngay def modélisme da ngay def stylisme da ngay def teinture da ngay def accessoire aussi formation académique bi formation de trois ans maintenant pour la formation accélérée aussi bobu da ngay euh, def coupe couture kase la da ngay dem tracer ci tissu bi nga dagg ko après nga dem ñaw yi ko léegi maintenant pour la formation modulaire da ngay xol choix la entre lay xol module soit les chemises les vestes les pantalons Obasanjo Taïbas et cetera et cetera nga xol bu la si neex après ñu jangal la boobu. boobu moy lool moy sunu trois différentes formations yi nga xamantene mom lañuy exercer exercer fini. Yo yep aussi sont des formations payantes hein. bu nek dafa am aussi ak baremam quoi. d'accord dañuy reculer wat ci ginnaw touti laaj la Birahim Ndiaye kan moko ko jàngal waaw man nak ñi ngi jàngee ñëw ci suñu papa suñu wéyjur Amath ndjay nga xamantene dañ ci fier nak lool lool lool sax waaw dañu fier lool si euh, si jang ñëw bi man sax dama naan jànguma ñëw ndax man bi may jàngee ñëw yàggul ren laa ko jàng xaw ma daaw deux ans la mën a def si man mais j'ai un petit frère Pathé moom aussi moom fii la jàngee ñëw bi fi école bi la defee formation ba trois ans génn ak ak certificat d'aptitude professionnelle ak certificat de qualification professionnelle ba pare retourné waat di ñëw jàngaat fii nii donc aussi loolu fierté la si euh, si suñu wéyjur boobu noonu muy euh, muy Amath Ndiaye moo ñu jàngal moo ko moo ko jàngal loolu jàngal ko tamit aussi ndax ñi nga xamante ne ñoo doon jàngale fii moo def xam-xam boobu si ñoom ba ñoom ñu mën a def xam-xam boobu aussi si ñun donc dañuy revenir rek wane ne donc moom moo ñu jàngal ndax tamit aussi source ba moom la d'accord tu biir euh, école de formation des fois nga gis école yo xamni ni euh, seen i formation c'est pas payante alors lan ngeen di wax école yoy non waaw école yoy peut-être dañoo am subvention rek. waaw des fois dañuy da nga gis ben école boo tane c'est subventionné par l'État mais euh, pour man école yi nga xamantene dañu wara subventionné dëgg mooy école yi nga xamantene ñom ñoy jappalé jappalé jappalé jappalé population bi quoi waaw jàppale ñiy jàppale population bi ñooñu lañu war a gën di subventionné seen papier mat nañ dañuy fay impôt dañuy def lépp ñooñu lañu war a gën a lañu war lañu war a subventionné ba nga xamante ne au moins dinañ mën a wàññi seen seen tarif yi nga xamante ne moom la ñuy fay waaw ndax tamit aussi mënoo di fay euh, chaque mois chaque euh, année ngay dem fay ji impôt di fay taxe municipale yeeg yooyu yëpp ba pare doo am subvention sa propre fonds ngay demee di def lépp say professeur tout sa propre fonds nga koy defee donc loolu aussi foog nga foog nga foog nga fay peut-être ñi leen ñi nga xamante ne duñu fayeeku tamit aussi ñooñu dañ leen ni euh, dañ leen fayal ñi nga xamante ne ñoo ñoo nekk foofu noonu encadrement bi quoi mais nag yooyu de fur et soo xoolee encadrement boobu ak encadrement formation professionnelle c'est diamétralement opposé ah. d'accord léegi former góor wala former jigéen ban moo ci gën a yomb. waa ñoom ñaar ñëpp en tout cas na nit ki am volonté rek. waaw nit ki moom su amee volonté rek dina yomb quoi loolu rek la volonté rek mooy mooy lépp quoi muy góor bi muy jigéen bi ndax ñun dañuy jàngalandoo ñoom ñaar ñëpp la ñuy jàngal dañuy jàngal góor bi dañuy jàngal jigéen dañuy jàngal xale dañuy jàngal mag. parcours du soir dañuy am ay maire yi nga xamante ne suñu ay moroomu yaay lañ dañ leen di jàngal aussi fii nii waaw ñoom tamit aussi dañuy def formation bi donc ñëpp la daal en tout cas ku si neex xel rek yaay jël lépp dem ko nee nañ la xool séntu asamaan la rek waaw soo xoolee asamaan si yaay xool amul buuxante amul dara li nga xool rek loolu ngay loolu ngay jël moo kii tànk si ndox si géej moo yem soo yóbboo siwo siwo ngay jël soo yóbboo pan pan ngay jël ci biir formation bi dañ ciy des ba léegi ci wàllu école yi est-ce que am nay école yi ñëw fii nii euh, pour ngeen defal leen li nga xam ne moom mooy ay je sais pas xamu ko mën a tuddee formation pour seen professeurs yi quoi waaw dafa am formation des formateurs loolu paa bi moom mooy diriger yooyu dafa am yi nga école yi nga xamante ne dañuy jël seen ay professeurs am nañ fi sax déjà benn mouvement boo xamante ne FENAF la moom pour affaire yooyu si yooyu lay dox jël entreprise yi soit école de école de formation yi la wala atelier tailleur maître tailleur yi ñu jël leen indi leen après ñu defal leen ay formation genre séminaire lay doon séminaire de 10 jours ou bien de 20 jours mais yooyu c'est état c'est c'est l'état qui décide état mooy décidé loolu pour ñu pour ñu mën a def loolu à part ça beneen bi ce sera ce sera privé c'est entre nous comme ñu jël rek def sélection ñu jël si ñooñu may leen ko defal leen formation Tu ci wàllu école yooyu dañ fay des ba est ce que mën nga ma expliquer lii ci ginnaaw. waaw li soko ko uniforme la Blaise Diagne wa Sem Blaise Diagne ñom lañ ko doon ñëwal chaque année ñun ñoo yor sen ay confection muy Sem Blaise Diagne muy Sem An muy euh, université Dakar Bourguiba. ak euh, IPE tamit aussi ñun dañ leen di ñawal dañ leen daan ñawal am na aussi euh, am na école bu nekk fii excellence benn école privée la ak naataange yooyu yëpp ay école la yoo xamante ne ñun dafa école bi dafa am dafa am confection aussi waaw loolu dama ko fàtte woon wax dafa am confection mooy xamante ne moom mooy res tout simplement les marchés ak benen bo xamantene euh moy comme Obasanjo yi ñi ñëw ak yooyu yëpp lañ koy jaar dafa am prêt à porter aussi dafa am atelier de confection ak euh, école bi mais yooyu yëpp c'est diamétralement opposé li day liggéey liggéey bi liggéey mais sous couvert de univers de la mode la. ci walu euh, défilé est-ce que univers de la mode mos na présenté. waaw yag na nak depuis 2006 ñi ngi def défilé chaque année dañuy def défilé waaw peut-être biñu ñu tuxusee Kër Massar fi lañu defagul défilé mais ren inshallah allah rabbi ñu ngi koy wajal surtout au mois d'avril. waaw ñi ngi waajal benn défilé bu mag boo xamante ne ce sera euh, pour euh, pour Kër Massar di si woo di profité waale di si woo waa El Média de ce fait que si gën a waxtaan gën ko yaatal mais chaque année moom dañuy daan def défilé deux ans yi nekk Kër Massar fii rek lañ defagul défilé mais dañ ko daan def au niveau de CICES. E d'accord euh, dañuy des ci ba tey ci univers de la mode dama bëgg nga ñëwal ma ci moo bi tuuti univers moom mooy lan. waaw univers boobu. directeur bi sax moo la si gën a mën a mën a mën a kii ndax forna si moom mu ne ma bi muy créer univers de la mode dafa am dafa amoon problème pour bind euh, pour pour pour bind nom de bi xam nga nee nañ la nom de marque dafay jouer si kii ci école soo defee marketing communication lañ la koy wax nom de mooy lépp bu mu demee ba am initiative boobu waxtaan seeg benn tubaab la xamu benn xaritam mu ko doon expliqué mu ne ko léegi projet bi daal en tout cas paa bi expliqué ko projet bi bi mu ko ko waxee yëpp ba projet bi taxaw mu ne ko maintenant ban tur laa koy tuddee mu ne ko man daal dama moon benn xalaat univers tubaab bi na ko voilà non da ko ne euh, école de mode école de mode tubaab bi na ko non il faut faire univers de la mode comme yow tu es universel mu ne ko yow tu es universel ndax boobu day ñawal ministre yi day ñawal tubaab yi day doon looloo tax voyage yu bëri lu muy toog Sénégal bëreetul moo tax ñun rek ñoo fi nekk loolu moo tax comme moom il est mu jëloon moo univers boobu noonu dugaloon ko si mu doon univers de la mode gën a tax mu indi mu mu indi tur boobu quoi. d'accord euh, dañuy des ci ñaw bi ba léegi euh, nga wax ñu rek naka nga gisee xale yi jigéen yi ñëw des fois di la approché euh, comme genre Binuski ñu ñu gisee benn affaire rek dañuy ñëw di la bëgg saa su nekk naka ngay dundeek ak ñoom. waaw xam nga nit ku nekk rek su ñëwee ak ni ngay ak ni ngay comporté moom en tout cas yow mi nga xamante ne yaa nekk dans le milieu yow yaa ko mën a orienté ba nga xamante ne moom li nga xamante ne moom la bëggoon ñëw si sax di nga ko a détourné ba nga la ndax école patrimoine la dañ la fa teg pour nga gérer normalement quoi waaw d'accord ci wàllu mystique des fois day bëri ci filière bu nekk est-ce que Bira loolu mës na ko dal. ah ñun dañuy sant yàlla ndax tamit aussi dañoo jóge fu baax foo xamante ne ñëpp fa la ñuy naani jee waaw yooyu peut être que ne euh, ñëpp xam nañ quoi waaw ñu fa la ñuy naan jee donc ñun amuñu loo xamante dañuy ragal si loolu suñu wayjur euh, ñaanal nañ ñu am nañ ay ñaanu wayjur donc rek loolu rek sant yàlla la quoi peut être leneen lu si dollee ko rek dañ koy gën a dañ siy gën a bénéficié wu rek ne alhamdulilah quoi mais yooyu moom mësuñu ko sentir benn yoon si au niveau de l' école ak affaire yooyu quoi waaw en tout cas li mesik bi daal lan la qualité qualité qualité bi la qualité d' enseignant bi la quoi su fekkee ne jàngale nga bu baax gars yi nañ ak seen xam-xam waaw baa ngi quoi loolu rek la dernière question naka nga gisee euh, naka Bira naka lay dundee ak ay clients am. waaw alhamdulilah waaw alhamdulilah ndax tamit aussi euh, muy parent d'élèves muy élève am naa ak si ñoom benn relation boo xamante ne même en dehors de l' école dañuy wootante téléphone des fois ñu seet ji leen aussi euh, def ay comme li gars yi di wax relation extérieure yooyu yëpp maag ñoom loolu la ñuy dund. dañ lay woo téléphone nangam sangam affaire yooyu besoin boo am aussi yàgg ñoom yéen koy kii naqar rek aussi naqar ak bànneex yëpp lañu lañ lañ laa séq ak ñoom donc aussi dañ ciy santaat bu baax a baax a baax samay samay client di kontante bu am si kontante bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sax te yàlla ak ma siy suturaal ba nga xamante ne seytaane dugg si quoi waaw samay collègue laay wax sax quoi du ma wax samay apprenti samay collègue am na ñi nga xamante ne ñoom fi mag yi Euh, j'aimerais bien que ngeen fekkone len fi tey jii ñoo ak papa ño 1956 la juddou donc tay yow mi don xalé bu ndaw nga ànd ak ñoom si ben bo boo bu liguey bu dynamique ba par set ñu jox la cieur bo joxuñu donc euh, man aussi dama len delluwaat loolu man dama len sant bu baakha baax surtout monsieur Sen, monsieur Ba madame Cissé monsieur Paté sama ñoo bokk nday ak bay mais mom moy yor prof mom moy yor classe la classe de la première année franchement di si def lepp lu mën man mi aussi damay joxe ay cours dama leen di jox cours de français cours de mathématiques des fois cours de coupe aussi comprendre nga donc amna yo yoo rek man ñoom awuma seen fay waaw des fois nga gis élèves yi du ñu affaire mais des fois nga jël ñu jël sax école pour lan uniquement pour école bi dox aussi toxu bees dafa affaire donc nous, mara laal fay sant même le directeur aussi des fois dafay ñëw doxe cours waaw Ndiaye moom aussi des fois dafay ñëw cours modulaire wala mu des cours formation accélérée aussi waaw man sant naa leen bu baax gërëm naa leen surtout yow Mor ak euh, équipe bi nga àndal yëpp muy Elvision Media di wax tamit aussi na ko ñëpp di ko ci euh, chaîne chaîne YouTube bi ñuy seetaan Elvision Media te ñëpp nañ koy aimé di ko partager aussi ah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup Ibrahim Ndiaye kon nag ñu ngi woon fii ci univers de la mode fii ci Kër Massar àndoon nag le responsable di leen jaajëfal bu baax a baax euh, di jaajëfal bu baax inter mbokku internet yi ça a été vraiment un plaisir merci.

trapèze, qui comporte tout, pantalon, chemise. D'accord. naka nga gisee école bi. waaw école bi am na leen jàngal. te en plus dina la expliquer dama comprendre. d'accord ñu jàll ci beneen élève moom itam élève bu troisième la. troisième soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. noo tudd. Adja. bu

يعني في ما نودو حيدا حيدا مو حيدا aida لا aida? حيدا ده حيدا يعني سكوم يدنا Troisième année. Alors, on a combien lycée école B Bon, ça va, il y a tout le monde, franchement, pas de nos regrets, on ne regrette pas. D'accord. Iya, D'accord. Alors, vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous moo xam Saint Jourdain ñëw. def si pondu lèvre yi ak braguette lèvre. d'accord lii métti na wala méttiwul. non non bu fekkee ça va métti na méttiwul tamit ça dépend rek boo si concent boo amee concentration rek xam ni ngay def boobaa ko dootul métti. Mhm. d'accord jërëjëf ñu jàll ci beneen élève moom itam mi ngi ñaan waaj la troisième année soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. noo tudd.

en deuxième année alors man nga ñu expliquer tuuti la ngay def nii. Mm-hmm. d' accord mën nga ñu expliquer nii nu mu tudd. robu taay maam d' accord moom ni ñu koy ñëwee. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay Mhm. d'accord d'accord comment école mhm. mhm. merci beaucoup alors euh, technique une technique nag dañ naan technique de de traçage ou bien technique de coupe. waaw xam nga ku nekk professeur bu nekk ak méthode am. méthode de traçage ak méthode de coupe mais tout ça da dafay dem toujours si méthode examen CAPD daal mooy méthode de tracer couper coupe. moom noonu la yor léegi yeneen yeneen professeurs maintenant comme coupe tracé moderne dafa yor coupe boo xam c'est coupe à main levée boobu tam aussi technique la beneen bi coupe bi baax da doon def sànq ñoom ñoom dafay jël fii. maîtrage beeg yooyu yëpp quoi waaw littérature dinañ la jàngal dinañ nga am technique boobu mooy atelier tailleur bi maître boobu maître tailleur bi ak beneen bi nga xam te ne tu seras professionnel quoi soo paree dinañ jëlandoo ñett ñaari kii yëpp yóbbaale jërëjëf voilà ba tey ñu ngi ci univers de la mode ñu ngi ak euh, Pathé Ndiaye dañu bëggoon nga expliquer ñu tuuti euh, lan moo indi différence bi yéen ak euh, yeneen tailleur yi lan mooy seen différence

tey léegi nga ñëw fii nii tey ci pantalon bi dangay am fii sa tour de ceinture te sa tour de hanche de un yaa ngi gis ay cré dina la jaaxal ñeneen tamit dina leen jaaxal. léegi dañuy expliquer terrain ndax am ñu bëri ñoo xam ne col lañu utiliser. voilà am na ñoo xam ne dañuy ñëw def loolu mooy main levée ñëw rek tracé fët fët wàññi devant bi wàññi dóom ñun duñu si fekk. Mm-hmm. dafa am loo xam ne dañ koy woowee barème barème bi nag soo ko jàngul mënoo ko maîtriser. da ngay ñëw fii par exemple tey montant montant soo ko déggee mooy fu yàqu hanche nit ki war a tege doo ñëw nga à peu près ko est-ce dégg doo ñëw nga à peu près ko tey soo doon gis montant nit ki ma ñëw nee la yow nga ñëw taxaw ni kii tailleur marché la nga ne ko yàqu nit ci hanche fan la war a nekk moom mu ñëw nee la nii rek est-ce que du fii wala fii nga ñëw ci koo xam ne dafa def formation bi nga ne ko yàqu nit ci hanche kii fan la war a nekk moom da lay ne un tiers du bassin plus deux loolu mooy barème bi. tey yaa ngi gis fii benn trait trait bii ni moom nañu woowee droit fil devant droit fil devant soo ko déggee mooy li nga xam ne soo ñëwee pantalon bi ba pare dangay gis benn pili boo xam ne moom mooy séparé nii milieu devant bi ñaari pooji cuisse bi da ngay gis pli pantalon yi mu demee nii loolu nañu woowee droit fil devant dañ koy marqué ak craie nag mais soo ko passé di nga gis ni droit fil bi moom mooy génn de amoon na benn question bi ngeen laaj woon tax fond dos bi gën a gudd que fond devant bi kanam ak ginnaaw bokkuñu ku ne war na kaa xam do moo gën a forte que devant tey devant bi lépp la do bi da gis ni dafa dugg carrément loolu moo tax fii nii fond bi ñoom ñaar mënul tolloo su tolloowee moo tax nit ki suy dox mel ni kuy dajale ñaari tànk mi di dem comprendre nga voilà léegi loolu mooy seen différence de un dos ak devant warul tolloo ba ci baa bi ba ci suuf moom nañ wooyu coupe pantalon dafa dafa am ñaari coupe pantalon Euh, salopette amna mom ngay lemono à quatre parties ñom ñep ñu tollo mais so gissé luy sen différence fi moy forme genou bi yéen a ngi gis forme genou bi da nga giss féké super 100 la da ngay giss carrément genou bi dafa dégager nga giss forme genou bi par rapport à benen coupe bi bi moom la ñuy salopette salopette da ngay ñew tout droit ni do giss forme genou bi ñu jall ci benen question bi. voilà équerre bi règle bi centimètre bi équerre bi li mom nañu woowee règle de Marche am na bo xamné ne perroquet la légui le fait que tey jii nii lii rek dalé won que ni tay soy def euh, tailleur war nga maîtriser figure géométrie ndax da nga gis ay courbe da nga gis euh, ay ligne droite hein ay segment d'abord yow lolou nga war ñëk njëkk a xam tey jii règle bi centimètre bi daf ñuy ser, pour ñuy mesurer

léegi nag par rapport tey jii nii différence bi ak euh, suñu mboxu tailleur yi macha allah mën nañ ñëw trop mais loolu mooy suñu différence ñoom mën nañ toog ci table machine ñu dagg fa lu ñu fay dagg mais tey sooy xool du ñu am loo xam ne tey jii moo leen gënal ñun suñu taxee ba taxaw si table ci table gi dañuy dagg lépp lu ñuy dagg suñuy daggaat dara ay wëñ lay doon wala dara mais duñ fa nekk naan ñu ngi retaay ci kaw table gi. différence globale bi dal lolou la franchement. Mhm. d'accord merci beaucoup. ok merci beaucoup ñing leen di jaajëfal euh, yéen di content bu baax ba ci visite bi ngeen ñu def di leen ñaanal euh seen euh, li ngeen bebet yalla na wessu seen jork ci barke yonent bi sallallahu